abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér ci réew mi ak ci bitim dikkati na Khalifa Ababacar Sall dee ngi roñ roñ ñi jëm ci tànki président Macky Sall bés bi la jour naan maan Khalifa ngi avancé fas yéene nag bokk ci dialogue bi Walf Quotidien naan ko déet Khalifa Ababacar Sall kay dañ ko nar ba bëmax ci tànku président Macky Sall las yéene kaay naan maan Khalifa Ababacar Sall ci boppam ay ñoñam ñoo ko demal wuy ji président Macky Sall ndax nag Sall doyew la leen lu ay wuy ji bés bi naan président Macky Sall dafa woote Khalifa Ababacar Sall naan waxtaan ak sama base yéene kaay bi naan maan Tamba nee na ko demal Pikine nee na ko demal xamal te naan kon fexeel ba boo fa génnee bul ñàkk sañ-sañu woteeti ci réew mi moom kay xalifa ci biir liste yi lañ bëgg a dégg fi mu ne xalifa xew coow li coow li xaafa ndax ca wooteeg dialogue ba nag dafa mel ni ay ñooñam ñoo ci njëkk wuy ji baas bu xalifa Babacar Sall naan kon loxo bi la Sall taral Macky laay wax de yow xalifa Babacar Sall téye ko Alioune Tine naan loo ci manti dégg dialogue bi dëgg-dëgg moo mën a génnee réew mi ci guuta bu ñu ne turbine yéen kaay naan maan Karim Meïssa Wade xalifa Babacar Sall moom président Macky Sall nag daf leen tegal boo xam ne lépp ci tànkuk setal leen ñoom nag ñooy choisir président Macky Sall nag teg leen gàcce ci digg réew mi humilier leen wala it ñu ànd ak seen toroxtaange dem muy ja amnistie bi yéen kaay bi dee média bi naan mante boo moytuwul nag gàcceeg muur dem ci président Macky Sall bi nar nañ ko fee gis ndax coordination bu taxawu Sénégal nee ñu dañuy dem wuy ji président Macky Sall tribune naan kon dialogue gàcce waay Alioune Tine ci le quotidien le quotidien mel ni ku naan déet dialogue bii moo mën a génne réew mi ci guuta tribune yéen kaay naan kon ca den dialogue gàcce la talal loxo la nag ngir nga ñëw ngeen waxtaan waxtu woo xam ni ma ngi lay wiiri wiiri jaari ndaar yi ku yëngu ñu téye ci réew mi ku manifester ñu ni la du am di sànni nit ñi grenade lacrymogène di toroxal askanuk réewum senegal mel ni ku jàppee askan wi ñu dul nit naan laan mënoo nekk candidat nga naan maay seet ba pare naan nit ñi dama leen woo ngeen waxtaan Mamadou Badiane bu grand parti ci tribune yéen a kaay naan Sall daal dafa mel ni dafa respecté wul nag askan wi bu taxawee naan ci ñu nangul dialogue si ku gedd sa yaay ay yeb askan wi ne ko may ma rek mu ñëwaat dem wuy ji président Macky Sall mooy toroxal sa bopp bopp te diggante bokk ci élection ak toroxal sa bopp yaay choisir ma waxati waaye nag coow la mooy bokk ci élection ci yenn anam ndax xaaf ak Karim Meïssa Wade nag seen loxo na mu diise woon ba tey ma nga ni gan lobs naan man Karim moom pare na pour wuy ji xaaf daal fi mu ne mooy déglu ay ñoñam sur su aane ba démb démb Karim moom nangoogul woon lobs naan kon sama wax du deñ Karim nangu na suur su aan naan ku dem wuy ji daal xaaral ni président Macky Sall lii la fas yéene waxtaanee muy jéggal Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall waaye tam yëraat système parrainage bi waaye nag suur su defal attention bi kenn du ko dindi ci réew mi de te la muy wax nii wii nii noog nag soo moytuwul mooy suuf si nar a xajamal cerek dialogue bi ndax nag Sall du teg dara suñu loxo tànk procès yi nga xam ne soob nañ ci Ousmane Sonko mu sakkan lool jeexagul le mooy yéene kaay naan maan booba dialogue a neex dialogue boo xam ne ñay waxtaan seen biir ñéppi tëxa ña ca des muuma pëccëxoo am te ne sabar gu tas déggoowunu ci façon ba nuy tënkee dialogue ba déggoowunu ca la ñuy waxtaanee déggoowunu ca nit ya nga xam ne ñoo war a superviser teg dialogue ba ba mu normal déggoowunu ci yenn anam ak kañ la dialogue bi di am diggante Alioune Tine ma nga xam ni ma nga naan président Macky Sall tegal dara suñu loxo dalalal suñu xel ba ñu mën a wooteel la dialogue bi ak bennoo bi nga xam ne taaral na dialogue bi ba noppi te pareegul observateur yi seen xel yi di lambeer di dute le témoin yéen kaay nan man fekk opposition boo xam ne amuñu kóolute société civile boo xam ni xaajaloo nan ba ne ngalañ yéen kaay bi nan man fii la réew mi toll fi mu ne dara doxatul ci réew mi lamp yëpp fay booba lee fa yéen ma nga naan man mi ngi ci guddi gu bër setagul moom ndaam Mal Kajoor nag weexoo ñuuloo moo ko yóbbe njombeli majorité bi moom nee nañ ko acca opposition bi naan ko bul yagsi Idrissa Seck nag ñàkk bépp crédibilité les fa yéen kaay naan maan booba ma nga dal ci kaw Ousmane Sonko di diiranteeg moom mbagg Ousmane kon xar ya yam turwaay yamunu njëkk Mamadou Gaynde Badiane ci tribune yéen kaay naan weexoo ñuuloo lii mooy payam Idrissa Seck dem na fekki président Macky Sall te xamoon na bu demee lii moo ko ciy fekk bu bëggee dellusiwaat tey jii mu bëgg dellusiwaat ni faax ci l'opposition bi duñu ko nangu Mamadou naan Idrissa Seck daf opposition bi rawatina ñun waa grand parti yi nga xam ne dañu koo ngémboon 2019 yóbbu ko élection présidentielle idi waroon toog xaar yàlla waaye mu yàkkamti wërsëgam dem fekki président Macky Sall lii la cay jëlee ñu naan kon dialogue bi nag mu naan leen wuy jiw ñu booba Sall ngay séddalee lu ko saf ci réew mi critique yéene kaay ne ma déet assemblée nationale kay la daal di caxat-caxatee Diouf Sarr mu yóbbu fonsis Amadou Mame Diop ñu war koo yóbbu bitim réew le regard yéene kaay naan maan Sall daal recyclé moo ko mën ci réew mi ay ministre yoo xam jële moom président Macky Sall andiwaat leen jox ni direction te sabab gi nag du lenn lu dul base politique bi ci boppam la président makki sàll bañ a ñàkk te terewul nag am na ñoo xam ne ñi ngi mer ba futu ndax sàll nag boolewu leen ci séddale gi tribune yéen a kaay naan maan waa Mbuur a ngay kaas naan président Macky Sall lu tax mësa fal kenn ku dëkk Mbuur ci gouvernement gi 1960 ci jamonoy Demba Diop ba tey nday roqi njaay ne amunub jëwrin nday roqi naan te moo ne Mbuur day am na Saliou Samb koo xam ni président Macky Sall nag mën na koo jël fegg ci wetam waaye ba tey furaas tribune yéen kaay naan man coow laa nga cëppandub teen ba wàllu dialogue bi mooy coow li lii ko di naan man waaye tam ndundul président Macky Sall yi Papa Modou Fall njiital sàmm suñum réew ma ngay woo président Macky Sall nag mu lett allié yi mbaa mu firi leen na wax Sall moom candidat la wala du doon candidat di sàkku ci conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar ñu daal di nag gindi génnee président Macky Sall ci nii wii nii noo gi mu nekkee ngir ndënd gi nag mën a samp l'indépendant yéen kaay naan man boobu kàngamu APR yi ña ngay tuñ tuñal opposition bi naan leen feñte ne gaz geeg pétrole bi ci réew mi moo tax ñuy jëfur te kat opposition bi benn feem la am moom moo di jaxase réew mi dëbb ko taal ko ba mar day taali buñ ko deful ña nga noppi danga mu APR yi naan opposition bi xanaa du ngeen xool xool leen président Macky Sall nag li nga xam ni def na ko ci réew mi te it pétrole ak gaz bi bés bu tàmbalee jar ngeen xam ni ndaanaa na yor réew mi wala la mu waxoon ci yoonu yokkute ñu koy gis lu ko raw mooy am ci réew mi lu raw PSE daañu ko gis ci réew mi ci kat 2012 ak tey ku xippi say gët gis nga gaayu Abdoulaye Diouf nag international nañ ci soobu fas yéene nag dem ci terrain bi jege askan wi wan leen ay réalisation yi président Macky Sall naan léegi 20 pour cent bureau 80 pour cent terrain la ñu wootee génn xamal tey xam le président de la république jot na le regard yéen a kaay naan man fekk boobu waa gëm sa bopp ak ca superviseur yu gëm sa bopp yi fukki fan ak juróom-ñaar ñuy daw ci réew mi daje ak militant yi sympathisant yi waaye askanug réewum Sénégal wax ak ñoom programme tekki jot na la ñu teg ci réew mi fas yéene dundalaat yaakaar ci réewum Sénégal gëm sa bopp naan ku xaar la programme boo xam ni dootoo ko gisati waaye wan la Sénégal goo xam ni di yaakaaru kese la te ndaw yee war a tekki te tekki dafa jot l'observateur naan man ci réewum Sénégal gi day tekki fi dina jafe lool syndicat yi ñi ngi waajal premier mai ci jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu texte yoo xam ni yàgg na ndàmpaay yoo xam ni mi ngi ci réew mi baaxul l'enquête quotidien naan man ñi ngi ciy chantier ci réew mi de fas yéene nag joyanti mbay mi mu ñoŋ le soleil yéene kaay naan man fukki mesure ak juróom jël nañ ko ci Dakar Times naan man FMI day boobu ma ngay xam ni 2023 bi Sénégal daal daal mi ngi ci yoon direct news naan maan bitim réew booba ñemeetuñu lebal réew Afrique yi te loolu it loo ci mënti dégg it coow la source a naan maan coow laa nga ca Ousmane Sonko ak takk der yi mu ne dañ ko bëggoon faat yéene kaay bi naan maan boobu le tentative d'assassinat docteur Babacar Niang mel ni kuy teggi prélèvement yi fee naan buñ ko defee yoon gëm ko dina jafe lool ndax na képp koo xam ne teew nga ba ñuy def prélèvement yi da nga waroon xaatim prélèvement yi ñett la waroon doon ñu yóbbu ñaar ci labo yoo xam ne bokkul benn bi ñu teg de côté bés bu weddi amee ñu jëlaat defaat ci kanamu ak huissier la yëpp waroon amee maître Moussa Diop ni ci façon bi ñu defee lii ko yoon mu daal di koy gëm dana jafe lool l'observateur naan maan Sonko moom ma nga ca rek ma nga ca sigi coor di doxal foofe ak di dal ci kaw imam Moussa Samb tribune yéen a kaay naan maan boobu Kër Massar ma ngay waajal Waly Ballago Seck ni ki ëllëg gaaw ci concert boo xam ni war na dajale waat ndaw Kër Massar yi Abdoulaye Sow responsable ca Kër Massar naan lii laa bëgg dégg de ndaw yoo xam ni dañuy ànd teex teex may reete gi projet ute xaalis bëgguma gis sama réew ndaw pëna ndaw boo xam ni da ngay caxat-caxatee alalu askan wi ndaw loo xam ni da ngay yàq loo xam ni moomoo ko ndaw loo xam ni nekkoo ci yar ndaw loo xam ni nag bëggoo lenn loo xam ni day tax nga jëm kanam ndaw luy liggéey jëmale réewam kanam jëm kanam day laa bëgg a gis moo tax Ablaye naan ma leen di woo ci boobu leen ndaje le témoin yéen kaay naan sécurité gi dee mi ngi ci soxna yoo xam ne fi mu ne dañoo sàkku seeni jëkkër yeewi leen ñu bañ bari na ci soxna yoo xam ne le témoin ne ma yeewi ma yeewi ma la ñu dëkkee seeni borom kër ndax bëggatuñu waaye borom kër yaa ngooy ca sëy